ringing ay waay ringing man la ay science ringing yéen a ngi seetaan vrai ringing ak Mama Its borom baax la bu leen fàttee fu ngeen seddale ko bu baax a baax loolu la wax ringing ngeen jàngin jëf ringing ay waay